daleen ak jàmm mbokku internet yu seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo euh, mbokk tey comme ni nga gisee Arouna Sangante laay wax nii mu nekk benn joueur bu xamante ne mooy loolu noonu euh, ku maytul si prochain liste bu Aliou dina ci bokk maa leen di wax tey def naa deux di wax renfort d'attaque gis naa seen i commentaire nag ki ngeen gën a bëgg gis et tout loolu dinañ si defal euh, ki ma gis ne ku mois de mars kii di central capitaine et tout nek benn jour boo xam équipe type Ligue 2 bu at bi pass de ci bokk gis nañ nak limu nek di def championnat France ba tax wax nañ né ay Manchester United City ñoo ko doon superviser Liverpool ak yenn club en allemand yu xamante ne yu su Wolfsburg ak yu ni mel Leipzig ñoo ko doon bàyyi xel bu baax a baax a baax baax ba tax na dal bu fekkee euh, am na ku ma gis ku méttu Alice nar ko convaincu donte on a trop de défenseurs faut noter ça on a énormément de défenseurs entre Abdoulaye Seck donc Abdou Diallo Niakhaté Kalidou Koulibaly ñooñu ñëpp ay défenseur lañ xam nga donc boo si bëggee teg Formose Mendy ak sa waay day gën a bëri mais kii Aliou Cissé ko présélectionné woon pour Coupe d'Afrique te boo xoolee nii depuis que ñu jógee Coupe d'Afrique ku nekk ñooñu xool li ngay def ci club gisuma instant ku gën a à bii di toj carrément du côté de Al Hilal di gagné ay matcham yëpp donte euh, kii ton Nottingham temps yi nag euh, faut dire que ñaxaate après Coupe d'Afrique bi noonu tag dafa gis gis nañu tiro bi yeeg penalty bi mu dugal ak confiance bi mu àndal ak mais Abdou Diallo c'est un peu compliqué pour Lorient c'est un peu compliqué aussi mais bon ça va pour moi, peut-être Abdou Diallo mooy moom mu mais niveau bu et que l'Afrique défense ko d'Afrique défenseur yi bëri aussi moo ngi moo ngi toj bu baax ba aussi convoqué mais lu tribune donc c'est moo ngi xel bu mais je pense kii nekk ko xamante bon le fait que guinée te woo nañ ko suñu tax na Aliou Cissé nag da koy bëgg a jël carrément gëmloo ko équipe nationale du Sénégal te dañ ne match amicaux en général match amicaux en général dina dina élargir bi te bu élargir groupe bi je pense pas pour woo ko dina difficile parce que on a trop de défenseurs comme ni ko waxee ay Abdoulaye sax xuma ko donc loolu yëpp fekk moom dañ koy woo intelligemment dañ koy woo parce que stratégie la dañ koy bañ a perte dañ koy convoqué spécial pour ne pas le mais actuellement on a tellement de défenseurs que mënoon na bu la neexee nga ne soxlawuñu ko mais da naan kon da nga war a tabax génération bu bees ëllëg da naan ko am 21 ans boo nekk nekk Ligue 1 ay équipe yu mag di ko bàyyi xel tee ma kaa jël xam nga donc teel yóbbu équipe nationale du Sénégal ba ñàkk ëllëg si biir bu fekkee choix am yow au moins xel dal na di nga xam ne kii moom mënatoo ko ñàkk mënatoo ko perte donc loolu moo dal eh, instant yi Aliou ak jour bi ba tax na man gëm naa ne euh, prochaine liste bu Aliou si bokk yéen a xamu noonu lañ ko gisee ci commentaire yi par rapport ak Alioune Sané Sangaté yi xam ne yéen a ko siiw bu baax baax ngeen wax ma si seen xalaat ak seen gis-gis gars yi ci commentaire yi yéen rek laay xaar jaajëfal naa leen wax leen ngeen doole ma si yeen plateforme yi que ça soit Instagram TikTok Facebook fépp foo leen tàpp seen football TV di ngeen gis suñu logo bi jaajëfal naa leen bu baax wax leen ba beneen sur seen football TV